ba yore numéro si eh, pour woo ko mu yëngal sama caabi sama caabi nekk waaye ba ngay ah, di métti sax naa ko bu jaaxle de bu sax dal tey di nuyu di ànd ak kontaan bu baax a baax jàkkaarloo ci ñu koy félicité bu baax a baax a baax a baax vraiment wane na boppam damaa doon toogal ak mu war a mu war a ay conférence am solo bu ñu sore dañ koy félicité rek nuyu ko bàyyi ko ñu doon waxtaan ak moom Zarko maa ngi lay nuyu di la félicité si benn victoire bi nga waaw merci ñi ñi kontaan di di leen jégalu ci si. ci ñàq wax bi nga xamante ni yéen a ngi ko doon interviewé biir stade may bañ a wax c'est parce que am na loo xamante ni bëgg nañ ko déplorer après làmb ji moo tax bëgguñu woon wax ak benn journaliste mais loolu nag dañ ciy jox rendez-vous tout la presse bu ñu bu kii di jàllee euh, dans la semaine bu ñu waxtaanee entre ñun suñu biir ba pare dinañ convoqué dinañ dinañ ko médiatiser presse bu si am jot wala bu bëgg information bi mu ñëw mu teew xam nga ñu waxtaanee ko. après mais foog ñu waxtaan ñun suñu biir ba pare comprendre nga leneen li ci des nag mooy maa ngi sant l' ensemble zone 7B de Grand Yoff di kontaan bu baax a baax a baax euh, ci Yves Braille di ko sant bu baax a baax di ko gërëm di sant I Dramé bu baax a baax a baax di ko gërëm di sant euh, Aline Badara Kébé di ko sant parce que li yëpp moom la Aline Badara Kébé si mooy président écurie bi bi ma nekkee Europe lépp. chaque jour mu topp ma booy ñëwal représenté booy ñëwal représenté ba ñu bàyyi lépp ba ñëw moom yàlla def booy fal ko mu nekk président donc ñun tamit amuñu lu sant ko gërëm ko di sant aussi euh, sama famille maa leen di sant bu baax a baax ci kaw bu ci suuf di ñaanal sama papa fu mu tëdd yàlla na ko suuf sedd ci kawam ak euh, di masaw aussi waa Kaffrine seen accident bi di leen jaale bu baax a baax a baax duñ ko mos a fàtte parce que dafa nekk loo xam ne daf ñu metti parce que euh, ay sénégalais lañu te ay jullit lañu. di sant eh, sama maam bu baax a baax a baax sama maam moom aw ma fayam maa ngi koy sant bu baax a baax parce que lu ne laa koy def te da koy muñ di gërëm sama yaay di gërëm sama yaay di gërëm sama yaay di gërëm sama yaay gërëm képp koo xamante ni eh, da ngay bëggee Zarko nekk zone 7B di leen tàllal loxo di leen wax ni man xam nga dama ñëw rek pour représenter Grand Yoff dama ñëw pour xeex couleur Grand dama pour ñu changer image Grand Yoff dama ñëw pour ñu changer. étiquette Grand F loolu moo ñu delloo si waat Sénégal bu loolu loolu mun naa toog Europe parce que maa woon sama jàmm kenn du ma sotti gàllaaj kenn du ma so toj ay nen kenn du ma toog ba sama xel may dute naan nit ñi ma yóbbu ci sëriñ wala dara kon donc su ma demee ba bàyyi loolu ñëw damay wax rek li laay war a sóoli les autorités de Grand F li am kër Zarko tey dafa ñaaw xale yëpp taxaw jëndal ñu billet jëndal ñu billet je pouvais le mënoon naa ko def mais du ma ko def parce que lii c'est un combat national du combat wu Zarko kese. international la yaa ngi comprendre du Zarko kese moo war a def lépp parce que Zarko mënul mënul gérer billet Zarko mënul gérer t-shirt Zarko mënul gérer car Zarko mënul euh, comment dirais mënul génnee loo xamante ni sax regroupement nit dañ koy togg Zarko léegi moom kañ lay am moom loo xamante ne dina ko lekk pour entraîner pour mën a am forme bi bi nga xamante ni moom la bëgg. est-ce que ñoom ñi ngi sóor ñi ngi sóor loolu parce que eh, mooy li ñuy wax rek eh, sport bi ñuy def nekkul sport bu yomb de eh, wallahi azim ak yàlla bu ma génnee yàlla ma oto rey Ada bu fekkente ne entraîné lu ma ko une semaine yàlla bu ma jëriñu ci kaw suuf billaahi wallahi wa taalaahi entraîné wu ma billaahi wallahi taalaahi entraîné wu ma loolu nekkoon Gambie tëdd nelaw lekk bu suur laa fa nekkee woon entraîné wu ma billaay wallaay taala bu fekkente ne entraînement fi ma bëgg egg yàlla bu ma fa egg. balaa ñu ma ne la sa waay ah Gris na pare. gis naa ko instant muy di di di wax booy bi na ma ko eh gis nga kii dama koy caw ba pare te si yow laa jëm te ci moom laa jëm. tapet la bu mag giri boo amee fit bu fekkente ne li ngay woote dëgg la ci yow jëlal avance bi sa combat yoog ama yàqu na jëlal avance bi ñu bëre boo wane la doo dara tak ragal bu bon nga sa biiru maafe bii nga yore. mais moom nee na neexee dimanche. Gris Bordeaux boo bëggee dimanche sa combat yàqu na boo bëggee dimanche père Gaston na ma seet ma jël sa avance Ibrahima Diop na ma ñëw seet man ma jël Gris Bordeaux na ma ñëw seet si man ma jël Gris Bordeaux sëñ bi lijjantiw ma ko na ma ñëw na ñëw moom sawaay déggoo li ma la wax xanaa ni may wax deel début man Zarko bépp mbër bu bëreeg Modou Lo Modou Lo mu la man Zarko bu ma la jàppee dama lay caw parce que ñoo jàngandoo ñoo moxalandoo ñu berandoo ñu mu nekk roi des arènes moom yéene ko ko di ko ko di di di ñaan mu bàyyeeg moom yaa ngi dégg à moom làmb ji ku ma ci téye dama lay damm parce que du man a ñoom sax si mentalu bëre. bokkuñu. am na am na solo mais yàgg Zarko yàgg kii mooy Ada Fass seen combat bëri woon coow tension combat. waaw ah, loolu du combat sa waay. mais bëri boo ko jëlee foog coow ah, li bëri mënul ñàkk. mënul ñàkk yow mënoo dofu grand bi nga ne coow du bëri. bilaay walaay sama yaay moo ne ma bopp mbaam bi mu dem moo tax yóbbu ma mais sinon dama ko naroon yóbbu <laughs> wallaahi al azim dama ko naroon yóbbu <laughs> <laughs> mais maire bi moo ne ma bul ko moo tax yóbbu ma ko. ngeen uh-huh. bu ndaw amoon na fa. non mais loolu loolu làmb la rek man xanaa moom yooyu noonu daf may dundal man maay man maay poussé samay adversaire ñu dugg ci loolu uh-huh. man maay def loolu mais loolu nekkul loo xamante ni sax man après damay dugg si géew bi arbitre sifflé mu nekk sama bopp man bu ma defee lu ñu lu ma neex ba pare ba arbitre sifflé ma duggee si géew bi non non loolu beneen Zarko la mm-hmm. kooku maanaam kaa ñu dee. i fawum góor la ku mën sa moroom rek rey ceebu dëj ceebu ngénte lañ yemale boo ci dem ceebu yàpp ngay lekk góor du yërëm góor te dama la boroom xaalis du ragal passement jamais maa ko waxoon te maa la ko répété waat am nga démb naa leen après fii du ngeen fi jóge yéen a ngi nii tey voilà la preuve. d'accord la jël ma jël ko malmené ko mais dañu gis tey ak. Gris Bordeaux du def trente cinq du def trois secondes. dégg nga ma de. Gris Bordeaux du def trois secondes. waaw loolu passé na. man beneen combat laay utaat saa man dama ñëw fii pour ay combat pour bëree. d'accord Zarko mais dañuy wax si combat bi parce que. lii loo wax waxaatal ma dégg. man kontaan ko moom man kontaan ko moom saa non mais loolu fee. du Thiès saa man dama doon xeex koñ. ay dëkk lay xeex man damay gis ne am xeex sax mu ñëw ne la jaay ma ko yëkkati xaalis jox la nga jaay ma sa xeex ma dem kot ci ngay xeexal guddi dem xeex ak moom samay grand yi dëkk fii yàgg nañ nopp jigéen xale bu jigéen bi bañ ñu ñëw fay ma ma kot xale bu jigéen bi guddi dóor ko mu nopp grand bi yaa ngi dégg man xeex dama ko bëgg naturel xam nga nit nit mun nga def loo xamante ni bëggoo ko mais man xeex dama ko bëgg mais moo tax ma ne ko aada bu doon fecc du ma ñëw parce que xam naa ne yaa ma ko dàq man du ma fecc man xeexkat laa. waaye lu may ñëw man seetaanu ko ma combat bi. di di di saara bi Gris Bordeaux parce daf ko doon yuuxu naan ko dóor ko dóor ko ma ne ko yow boo ñëwee sax ma lekk la. non am na eh eh néewul doole de. non mais saay aada ab aada wax naa ko nee naa ko man dinaa la bàyyi nga téye sama ngemb te doo bëree sa waay man duma duma nit boo xam ne damay waxantu man Baay Faal laa man lépp lu ma wax dama bu téye sama ngemb ba Tabaski ci ngoon munu ci ci dara mais léegi fan bu bëriwul nag man tapet la mais Gris moom daal moo fa nekkoon di wax nañ ma ko jox giri moom mbër bu soxla Modou rek na ñëw jaar si man ba pare après soog a dem na ñëw jaar fii rek ba pare soog a dem ku ci laaj Modou rek daal man laaj naa la ni ma benn mbër mais ku laaj Modou mbër bu laaj Modou Lo man Zarko soxla naa la dégg nga. voilà Mballa nee na Boy Niang la ñuy jël booy jël Boy Niang kon. Mballa nee na Boy jël. saa yee dama ne la Zarko bokkul ak kenn du mën ak ñoom. sa waay ah waaw yow wax ma booy ñëw. Abdou. géwél yi waaw loolu force la. yéen a waaw waaw léegi léegi yéen dem na waaw li ñuy tàggoo rek mooy euh, maa ngi sant bu baax a baax di gërëm euh, képp koo xamante ni euh, yaa ngi liggéey ci média bi. di masawu aussi. Euh, waaw mais xam nga xam nga lan moo tax nag xam nga lan moo tax nag ah mënul ñaax mënul loolu loolu loolu force mu am parce que yow mënoo dem di bëri ji en ah, yow tamit di la sant bu baax a baax léegi rek di la sant di la gërëm. moom zaal waaw euh, munoo dem di bëri ji àdduna bi yëpp benn wax la ñuy wax déglu ko may ko xool lu mu indi mais man xam naa bu ñu taxawee deux cent soixante quinze ans Ada Fass du jéggi tànk songu ma su ma ko songul du ma songu kon loolu noonu yow bu la le yow bu yow yow eh, nga xamante ni yow yaay athlète bi nga nekk ci biir nga xam ni kii nii ba suba du la songu mais foog nga may ko ay ay possibilité pour mu a pour mën a ubbi bëre loolu kese la parce que man xamoon naa ne bu ñu jàppante day yooru parce que français la du gis loxo booy booy booy xàcc muy gëmm. su bëri bi jeexee mais Ada Fass jël bi ma ko moom la moo gën a yomb. saa Ada jël jël xam nga moom euh, mi ngi dem signature doon dóor entraîneur bi tànk. waaw waaw waaw. Doro da tarin samun jamani. Doro ba ka. Ka jagi min jaga ta jaga ni min jaga la dëgër na xaar tracé man nañ ma jox nañ ma jox kii nu mu tëddee Gris Bordeaux ba pare Gris Bordeaux eh, eh, adversaire am dafa dafa déserté. non dama ne la non eh, déglu waxuma la déserté déserté. ne ah, Sénégal xam nga. xam nga xam nga xam nga xam nga. non Siteu lu may jàppale. non Kéba lan la may jàppale. Siteu Siteu Siteu amul lu may booy bu laa war a suur s'il vous plaît waay ah gars yi tamit. waaw gën soo bëggee dégg-dégg saa aca ñu dem waaw wax ak ñoom ñu noppi bàyyi. sa digganteeg Siteu ndax def na ci loxo sa digganteeg dara sax Siteu li mu def ci euh, combat bi mooy que ni sama xarit la sama nit la mu yéene ma ndam ma mu combat mu ñaanal ma ma daan yaa ngi comprendre dañuy déggante dama ko xam xam jabaram sama xarit la dañuy waxtaan. mais jàppale ma baa li ma jàppale mooy conseil parce que chaque guddi ba démb ci guddi mi ngi ma naan zar dalal zar dalal booy bi boo dalee mu yaa ko mën yaa ngi comprendre loolu la ñu sequ quoi mais man dama bëgg xam ñu xam Sénégal ci àddina man Zarko benn mbër astafurlaa ñaari mbër laay taxaw ne man dootuma bëreeg ñoom muy Modou Lo ak Siteu. Modou Lo ak buñ ma jox ay milliards. parce que man xaalis feesul sama bët ay milliards ak li ci biir nit mënul wax ba ma bëri Siteu Siteu li waroon am suñu diggante man ak moom am na léegi nag li sax suñu diggante loolu benn beneen lien boo xamante ne amitié la boo xamante ne du moom moo ko xëcc du man maa ko xëcc yaa ngi comprendre yàlla moo ko def essai bi naturellement yaa ngi comprendre doomu aadama mënatul wax man ba ma wax la ci Siteu tarafatal ay ni kooku c'est impossible mënul am. daan nga Ada Fass message nga koy jox. waaw Ada Fass moom liñ koy wax rek mooy que ni rax la dañ koy conseillé mu dem entraîné ji te xam ni Zarko daan ma Zarko daan la nekkul loo xamante ni mbañ la du gàcc ci moom xale bu ndaw la mu ngi ci yoon xam nga waxoon naa ko nag gëmu ko ne naa ko euh, naaru sokaas. non du naaru soxaas déedéet kii eh, eh, booy bi dëkk eh, Pikine waay déedéet ci ko dóor ba mu daanu Onde le ne woon naa ko Onde moo lay def mbër mais man Zarko maa lay def champion wax boobu noonu tey ñëw na si fii lay jóge nag nekk champion mais nag wuy ma boo fi nekkee roi des arènes bu ma màggatee sax ñëwal jël si sa revanche sa revanche bi dama koy jël si de saa yi bul sax bul sax dallu parce que xaalis bu ma denc foofu la yow ñëwaatal rek boo ñëwee daan ma coori ji non grave mention spéciale amul lu ma leen wax wax dëgg yàlla amul lu may wax zone set b de Grand Yoff lu dul sant leen gërëm leen eh, di leen di ñaan suñu ànd bi yàlla ñu yàlla lafal cat di sant bu baax a baax képp kuy képp kuy njaago dëkk biir Grand Yoff eh. di leen wax ni Zarko mi ngi leen di sant bu baax a baax taxawul nañ bépp côté lépp lu ñu mën di sant ñëpp bàyyiwuma ñëpp bàyyiwuma kenn di sant ñëpp di leen gërëm mbëru Grand Yoff yi écrit Grand Yoff mbooloo eh. sama gars nekk Paris ñoom euh, ñoom Momar ñoom Bouba Diawo ñoom Sadam ah ñoom euh, comment dirais-je euh, Gora ah ñoom Sams ñoom Laurent ah ñoom comment dirais-je Formose ñoom Modou Modou Modou Yaama Modou engagé ñoom Poupé ñoom Yves Baraay Yves Baraay moom mention spéciale ñoom Idrame Idrame kooku moom. ah yàlla ñu yàlla bàyyi rek ba ci kanam lafal ñu cat mooy mooy moo nekk nii mooy sama Aziz Ndiaye moom ñu ngi koy bu baax a baax a baax di ko gërëm non mais munul bañ a kontaan parce que moom dégg na lu ne nit yi wax na lu ne sama diggante moom terewul faalewu leen parce que xam nañu kii bi may fubal moo nekkoon sama capitaine bi ñuy fubal Grand moo nekkoon sama capitaine non ba léegi rafet musul rafet non non musul rafet di di di sant bu baax a baax ah. waa Gambie maa leen di sant bu baax a baax ñoom Jabel Touré ah, ñoom Grand Ndéné ñoom Père Ndéné ñëpp ñoom Jabel Touré ñoom Essa ah, képp koo xamante ni yaa ngi Gambie rek waa Sëncu Alaaji maa leen di sant bu baax a baax di kontaan ci waa jàmm gën seen taxawaay di kontaan si waa Parcelles di kontaan si waa Pikine di kontaan si waa Géejawaay di kontaan si waa Caaroy di kontaan si waa Fass di kontaan si waa Ndakaaru fukki penc ak ñaari maa leen sant bu baax a baax eh, eh, waa Soprim eh, Liberté 6 waa Arafat gang gi doole gaal gi xaar yàlla Liberté 6 zone de captage jibo xaar yàlla yoon bi ñëpp ñu leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm di sant waa Fatick waa zone B waa Njaanjaay maa leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di kontaan bu baax a baax waaw dimbali ma nga ma Biafra eh, baax na merci à demain kon ngëwël gi kooku kooku force la ami baara kooku dañ koy tëggaat moo wane ne mboos ma njaku Grand Yoff ma semba siya sina loole am ah, ku ma njaku jika fuur sama eh jëleen bi jëleen jëlem bi jëlem bi yee eh Matar Matar Ba. non non Matar Ba. boo ñëwee comme ni ma wax du wax de damay defal lu leen de waaye defal boo defee lu man dem damay def wax rek eh, bul dof yooye yaa ngi tam sa bu gudd bi nga dem fayal nga dem fayal nga fay ngay dem may wax fu Matar Ba ngay fay fayal yow bu ma Matar Ba recevoir ma nga. eh taxaw nga jël ko. donc léegi doo ko jël da ngay dem. alaay. léegi sama gouvernement ngay xeex. laay loo dem wax ñee ni noppi ngay dugg fii fooy dugg fii. lay lay lay léegi caméraman yi ñu ngi leen di pousse yéen dañuy pousse.